رسول الله وعلى آله وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لندزيار مبوك تلسبكتاتوري دولن دوكيل سن جوتاي اتداري تاي ناك نعم كم بو أم دي l'importance de l'enseignement et de l'éducation islamique dans la société ahamiyatu tarbiyatul islamiya wa taalimi fil mujtama maanaam njëriñu jàng ak yarum lislaam ci dëkk bi ñu war ko ànd ak suñu mbokk yu tedd yi ñu nekkal ci plateau bi waaye balaa ñoo dugg ci biir thème bi dañuy bàyyi suñu mbokk yi ñu nuyoo bismillah Cheikh Malick Anne الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا خير الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله نريد بعض الله مني Yunui taksamuk ibahim isang Aksamuk at patu tekdarai Yikon lagu bahtam titem bunyi tu boleh Menek ketem beramsol Tuti litem tuwal at adjang Mui nyari rio kami nyoril rio. Masya Allah Anak turun na tu kada ferek Namanya dolak kada kita mabes kami Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Syekh Malik An kàddu yi am na solo lool ñu jox kàddu gi soxna Aminata Joon bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi asra bi abdihi layla min almasjid alharam ila almasjid alaqsa والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi mbokk yi seetaan bi seen plateau ëttu yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital nuyoo suñu kilifa suñu yaay suñu xarit soxna Adja Binta Gueye ak képp ku mbokkal liggéey bi ba naan li nga xam ni moom la naan parce que yéene liggéey borom subhanahu wa taala kàttanal leen wéral leen seen yoon bi duma delloo kàddu gi lu dama nuyu sama mbokk yu baax yi mu bokkal jotaay ku mel ni sama xarit sama mag soxna Nafaat ak Serigne Malick Anne sang bi Aliou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

ليفرط نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan fii si plateau Ëttu Daara yi. di nuyu tam sama mbokk dëkkandoo yi nekk si plateau bii. di kontaan tam bu baax si tam bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi dem si wàllu yar ak jàngal salaamaaleykum. waaleykum salaam. ba léegi yéen a ngi seen plateau ëtt daara yi tey ñu war a waxtaanee leen ci réew mi jëm ci wàllu jones bi muy wàllu jàng ak yarum lislaam ñu gis ni kat réew si avancé rek jeunes yee ko avancé waaye jeune bu am xam-xam te xam-xam boobu tam mënul jëriñ lu dul dafa ànd yar bu mat sëkk ci loolu ñuy laaj Cheikh Malick Anne lan mooy yar ak jàng de manière générale jërëjëf soxna Fatou Lac bi yar ak jàng dafa nekk ñaari baat ci la trop ba tax nit ñi parfois dañ koy jaawal te bokkul ñu ngi jàng li ci bëgg mooy nga am xam-xam xam-xam nag du rek nekk si livre yi am na si yoo xam ne xam-xam yoo xam ni dañ koy jàng sàngatin téere yi moom la ñu naan xam-xamu métier commission yoo xam ne léegi dañ koy jàng si école yi ba am seeni jaasa su dee yar nag mooy loo xam ne xale bi. lebih ba mu nekkee gone ndaw la ko ay faram di tàmbali wala sax laata ñu judd ba ni muy juddoo ñu def si moom ay valeur yu baax ba gis ndaw ko loolu lañ seetloo léegi li gën a bëri si école yi ak daara yi dañuy bind pour la mémorisation du Saint Coran et de l' éducation islamique waaye bi mémorisation wala sax lu am lu néew lay kon daal su ma la déggee bu baax daara yi ak école yi am nañ si part de responsabilité. waaw ndax léegi la moteur partisan wu xale yi école bara wala daal di dugg parents yi léegi nekk ak xale yi bëriwul. mais ñoom ma foog ne jàngale rek moo leen war yar bi kay xanaa papa yi ak yaay la war. loolu nag mooy erreur bi du papa yi ak yaay rek la war parce que jàngalekat bi. ndax nggak nga jàng mënul génn si yar bu nekkaan daan daa gis xale yi di ragal def dara bala ñu dem école ñu dem tay kita mau para parents yi seen doom yi duñ dóor duñ wow duñ xëb waaw dina am yar wax ga rek nga mën a def te ñëpp xam nañu ne xale xale allah ñoo ngi ñëwaat si ñu dem si soxna Aminata Jonn lan mooy yarul lislaam waaw soxna na bu nekkoon sa question bi may revenir tuuti si li sang wax sànq ndax dafa ama am solo mooy ni xale bi laata muy judd si la ab yar war a tàmbali mu topp si la ab yar war a tàmbali moo tax sunu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi abi hurayrata kullu mawludin yuladu ala alfitrati

valeur lislaam yooyu rek boo ko amee xale boobu def lenn lu ñuy ñaawlu te dina servi réewam ndax bëgg muy bëgg réewam. kon daal su déggee bu baax képp ku ñëw si lislaam dafay nekk ku bëgg réewam te yorum lislaam mooy ku am diine te xam tey def lu yàlla ak yonent bi wax te bàyyi lépp luñ tere. waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xubbul watani minal iman bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk kon ñoo ko déggandoo mbokk yi ba léegi ñu jaale si laaj bi si topp Seydina Alioune Cissé nan la ñuy def ba xale yi mën a am yarum lislaam jazaakillaahu xayran soxna Nafaat sa laaj bi am na waaye léegi nag naka lañ war a def ba xale yi am yarum lislaam pour xale bi am yarum lislaam mën naa ne yomb nag waaye mën naa ne aussi yomb ndax ça dépend si avenir bi xale bi nekk yu mu gis nit wala ay xaritam wala ay àndandoowam wolof nee na wax ma sa xarit wax la kan nee na aussi dëkkandoo day wàlle ñun gis nee na pour xale bi am culture l'islam il faut ñu solole entourage am ginnaaw ba parents yi dafee seen wareef ba pare. macha allah ñëwaat si yow Seydina Aline. mbokk yi képp ku bëgg a dugg ci émission bi ngir am lu muy laaj wala am ay contribution mën nga jokkoo ñun ci numéro serveur bi 88 846 77 64 88 846 77 64 88 846 77 mu mel ni ki temps bi léegi ñu xoñ ñu yaa tàkko ana lan mooy importance yarul islam wala ay jeexantalam ci biir réew mi soxna yaa fàcc sa laaj bi am islam mu nga def si bokk na si nit kooku du yàqu inna allaha laa yuhibbul mufsidin nit kooku itam doo ko dégg mukk si musiba yi xale yi léegi di def si réseaux sociaux yi si wàllu homosexuel mooy góor jigéen ñi xale bi du ko sax jéem a xalaat bay àgg ci def nit ku am éducation islamique du def mukk luy tardé réew mi te dina participer si développement économique bu réew mi wala développement social et culturel. dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi bismillah asalaamaaleykum. allo waaleykum salaam soxna allo waa sëñ fàttali ñu tur bi ak sant bi. maa ngi tudd Fallou Faye. sëñ Fallou Faye ñu wala da ngay contribuer. bismillah. mm li ko waroon nag dafa mel ni réseau bi daw na mais dafa bëggoon wax ni kullukum raay wa kullu raay mas'ulan raayati kenn ku nekk sàmm la te sàmm bu nekk nañ ko laaj ëllëg yowmal xiyaam lu doon sàmm mais aussi temps bi jeex na xanaa ñu jël keneen ku nekk si ligne bi te tëj asalaamaaleykum. maaleykum salaam sama yaay booy. bal ñu fàttali ñu tur bi ak foo ñuy woowee. maa danga bëgg a laaj wala dangay contribuer. ñaar yëpp kay. bisimilah ñoo ngi lay déglu. man maa ngi sama xarit ba lan mooy waral sa parents sa xale pour ñu am culture l'islam. dama dégg nga ne waru su parents mais lan mooy waral sa parents sa xale pour ñu am culture l'islam sama contribution mooy. vu qu'auparavant, il n'y avait pas les indices Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Bollywood, ce n'était pas accessible facilement comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, les indices nous sont bien faciles pour y accéder, d'autant plus LMD, Big Music Dance. léegi nag su fekkee ni internet bi dafa libre boole Big Music Dance ba xale bi xamatul dara boole yooyu yëpp non seulement du xam dara. mais aussi pour la première chose à faire c' mhm. ah, booy yow de waroon naa laa invité fii acca Seydina Alioune tontul ma sama mama gaaw. waaw oh, yaay booy foofu de soxla naa moom a dagg waaye waroon naa kaa leeral. wala Faalaye si diin. gis nga xale bu ndaw dëgg si diine dara du ko yomb xaadim rasul ba ko tubaab bi laajee benn taalibe bu joxe doomam bañ ko laajee lu tax xam lu wax daf ne xale mu war a si moom c'est-à-dire que def na mu war a ba tubaab bi du ko war a déggee comme nañ gën a concentré seen éducation de base seulement. macha allah am na solo. yaakaar naa ne xam-xam génn na fi te dina jëriñ képp kuy seetaan mu mel ni que ni waxtu bi jot na kon ñu tëj jotaay bi ba beneen jotaay fii ci plateau ëtt daara yi ak beneen thème ak yeneen invité wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. takbir ci la leneen dugg lu am solo loo xam ni ëppoon naa bañ a def macha allah eh, yal na yàlla sàmm xale yi yal na yàlla def leen i mag. yal yàlla dundal leen te teral leen ci barke alquran léegi nag euh, dañoo jëm ci ci ci sunu ñaari jàmbaar yii nga xam ni tabaarakallaahu euh, allahuma la adur dama bëgg am place bu yaatu macha allah yàlla fay yiw yàlla barkeel yàlla may la fan bu ànd wér-gu-yaram. amiin yaa rabbal aalamiin rafetlu nañ kàddu yi macha allah di wax ñëpp jazaakumullaahu xayran

comme oustaz <laughs> dañuy continuer waat programme bi. waaw jël suñu xaafisaat yi. ndax jigéen ñi après ngeen koon ñu ñëw. ñam li yàlla buur tànn ñi waa këram lii ya bàyyi seeni kër dem ca daara ga wattu téere yàlla bi lii de doy na ndam wattu téere yàlla bi lii de doy na yoneen nee na ñi fi gën ñooy ñi jàng xam yoneen nee na ñi fi gën ñooy ñi jàng xam teg ci di ko jàngale lii da doy na dam naanu jàngi alquran téere yàlla bi naanu jàngi alquran téere yàlla bi ngir ñu mën texe fii texe faanu jëm waaw ngir ñu mën texe fii texe faanu jëm aywa jóg leen ñu sargal gaay alquran ñoom ñi yàlla buuru tànn ñuy waa këram ya bàyyi seeni kër dem ca daara ja wattu teere yàlla bi لين بينهم والتجار الذي لين بينهم من فوتا يسرجل سون يجبا فوتا يسرجل سون يجبا فوتا يسرجل سيدا أجي وكان نجاتي دينجي yaajibay sawaar yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla mane fawutam nu sargal sooru yaay ju baax sayda aji day ak baax kenn nga ci diina ji yaajibay sawaar kenn nga ci diina ji من كان قاجدين جي أو كان قاجدين جي يا جبي قاجدي يلا يلا سملا يلا يلا آر يلا يلا سملا يلا يلا أي وجه كل نسرقل جاي القرآن نمني يلا بوركن نجي وكرم ஈரவைசேலிதர் ஜம்சகாரகா வத்து தேரையல்லபி கீரகைனகம் வத்து தேரையல்லபி கீரகை رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يمنح

رحمن ساعدني يا رحمن صدري قرآن أيوة إملأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للخطم وللرضوان رحمن يا رحمن من قلبي قرآن وفي حياتي قرآن تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير تكبير صغيرة والله العين قريب يحمل فجوة لينيك بتلاوته الأقوار رحمن يا رحمن Oh, jazakumullah xeyran barakallah ah lii na ko tëj ko xale ci kër génnul demul dikkul ñu bari jàpp ni dina tardé ñu bari jàpp ni du baax ñu bari jàpp ni du am li moromam yi am ñu am loo xam ba àdduna di tukki kenn du am li ñaar li gën lu ñaar ñiy am yàlla ñu bind moom ñu yónnee ñu rasulullah yàlla moomu moom ñu gën ci ñun fuuf yónni rasulullah mu gën ci doomu aadama yi fuuf mu jël weeru koor def ko mu nekk weer wu gën ci weer wi jël guddik laylatul qadri def ko mu bokk ci guddi yi gën ci guddi yi jël Makka ak Madina boole ko ci dëkk yi gën ci dëkk yi ndax lan alquraanul karim bi ñaar ñiy gàddu tey alquraanul karim bi ñaar ñiy yenu tey doon ay xale yu ndaw demaguñu fenn seen àdduna sax ubbeegul yàlla dénk leen ñu mokkal li gën ci àdduna bi damay wax sànq ni ci ci ci njalbeen gi am na loo xamante ni bi njariñ la ci biir kër boroom kër yi soxla nañu ko waaye yaay yi soxla nañu ko te njariñ loolu xam nga mooy lana dafa am benn ci saar yi boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ni képp ku koy jàng chaque guddi balaa ngay tëdd doo manqué wërsëg te wërsëg dong moo ñu tax di daw di léeg nga gis koo xamante ne bi day toog ci tele bi ñu ne kii ab ñaankat la te yëgulee ni ñaan du métier diggante yàlla ak jàmm bi kenn doxu ci wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i yàlla ya nag teg condition idza da'ani kon ku toog ne ñaankat la ab ñaankat la nit ñi di ko wër xamul dara ki xam dara dëgg mooy ki bàyyeeg boromam digganteem ak boromam kenn doxu ci yonent bi ne saara ngi boo xam ni képp ku koy jàng balaa ngay tëdd chaque guddi doo manqué dépense fu nit ñi soloo nga solu bu nit ñi takkee or nga takk or fu nit ñi lekkee lu neex nga lekk lu neex kenn du la yërëm te boo moytuwul di nga dimbali ñu bare bare bari te loolu ci alquran la nekk te xale yi mokkal lañu ko muy suratul waaqia bari nañu ko mokkalul nag bari nañu ko mokkalut waaye nañ ko dem jàngi wala ñu jàngulu ko bi ci mooy ñaar ñii xaw ma ana seeni wayjur waaye nañu yég ni bis ni tey bis ni tey jii lépp lu ñu tooñoon seen boroom jéggal na leen ko ndax ñaari seen ñaari doom yi lépp lu ñu tooñoon seen borom seen borom jéggal na leen ko ndax seen ñaari doom yi ñu jël yóbbu ci daara ja mu dem jàngi alquran mbokk yi ñii ñoo jara sagal mbokk yi ñii ñoo jara wane mbokk yi ñii lu nit def ci jom ko koo tey ñaar ñi war ñu woon sax des fii grand théâtre la ñu waroon dem organe de presse yëpp daje fa ñu ne lan lañu ne dafa am ñaari xale yu jigéen yu mokkal alquran sponsor yëpp daje ñuy lim ay terrain di teg di lim ay milliards di teg ndax ñoom ñaar ñi waaye nag maal asaf xam nañ dëkk bi ñuy dund waaye ku ñu joxul li ñu moom ñun ñu jël li ñu moom ñun ñu daara bu ñu kenn dimbali ndax soxlawuñu ko bu ñu état dimbali ndax soxlawuñu ko ay yi lañu ci dëkk bi damay sax rus léeg-léeg bu sëriñu daara toogee ne état daf état daf ñoo war a dimbali pour lan ñu ñuy dimbali dañ ñoo war a jox li ñu moom dañ fee am cër lu fi baax ñun la lu fi kawe ñun la ku fi falu ñoo la fal kon nañu jël li ñu moom nañu am suñu fulaay bopp nag bu ñu kenn dimbali ndox soxlawuñu ko Adja mi ku ko xool xam ni ku am fulla la ci li muy def jàmbaar la lool léeg-léeg ma toog ak sama gaay yi ma jëw ko dafa sob dafa sob dafa dooj dafa bëgg lu baax ndax xam nga lu tax xale la waaye ku gis li mu liggéey xam ni ku sobut doojoo doo am lu mel ni mu am kon ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla saxal la ci lii yal na yàlla dëgëral la say wayjur kontaan nañu ci yow say rakk kontaan nañu ci yow say mag kontaan nañu ci yow say mbokk kontaan nañu ci yow siggil nga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bis di tey siggil nga alquran bis ni tey ci say biiri mbokk mbokk yi lii rek moo jar a xam lii rek moo jar a ñaan maa ngi jéggalu ci kàddu yi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 ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا xasbuki soxna baati. sadaqallahul azim. bëgg ngeen cee am. ñen ñoo ci bëgg am fi wëg déwén eh ba déwén xaf la ndax buñ ne ku bëgg rek waa raw da sax yëkkati nañ seen loxo xoolal waa déwén yow déwén lig ci am incha allah yal na yàlla barkeel leen ah ak waa raw da yoo ci ginnaaw maa ngi yéen ay ànd incha am ci téere bu soobee yàlla <laughs> aywa bismillah ñu suñu yaay mu ñu bi Thank you. macha allah xol bee fees xol bee fees macha allah. ok lii neex na de. allahu akbar bismillah.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 xëy na nag ba muy ñëw ci daara ji bugg ko woon dañ koo forcé ba mu ñëw yàggu tamit Touba la nekkoon di jàng mais biñ koy indi ci daara ji jooy na bay bëgg dee da ñibbi mais san yaay jee toog moom woo benn dimanche ne ma ak mu awa tamit ñu ne ma dama bëgg nga dem daara ja waxtaanal ak ñoom pour ñu toog ci daara bi ma ñëw fekk aji bi dañuy toog mu ne ma waxtaanal ak ñoom rek pour ñu toog ma waxtaanal ak ñoom di leen ñeent que man jaar naa daara def naa fa 10 ans daara man def naa 10 ans daara kon dèjà xam naa lu si daara. xam naa ni ñoom li ñu am tey xëy na man aw ma ba waxtaan. sàngam ah, daara ji génne ko ñu jaarale loxo yu wóor ba mu yegg si fii kon lii mooy wane ni shahada bi wane ni xale ci daara ji bu ko yóbbu itam dinañ nga xamante ni moo ne ca biir day doyloo leen loolu ndax yàlla rek a tax ñu di ko seere kon euh, ñu leen di jaajëfal ñu dem ci ci des muy euh, soxna Mariam Touré.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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بارك الله صدق الله العظيم تكبير تكبير تكبير kon dañuy woos soxna Ndeye Diagne suñu yaay mu ñëw joxal ñu ko cadeau bi ko yaayam jox yaayam. gannaaw a leeral tuuti rek. collègues yi mbokku islam yi ci toog yëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di sant yaa Seyda Aji Binta Gueye di ko sant cant boo xam ne amul fu sant naa ko lool gërëm naa ko te cant gi. maa ngi ci jiital comme ni ko papaam waxee rek mooy ni la commencé ca taw bee di ay sa géej ba ci Ousmane mii di caar amu ci kenn koo xamante bii nii sant ñu la gërëmu ñu ndax ay sa géej mooy taw bi nga xamante moo jiitu te baj bajiwul ba ay rakam mën a topp ci ginnaaw nopp lañ topp ci ginnaaw

comme ni ko mbokk mi waxee sànq mu diis lool waaye yàlla lay loo xamante ni bii lu oyof tooy ci kaw bi ci topp mooy ni damay sant Aji Binta Thiaw sant koo xam ne nii am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax Aji Binta joxuñu ko aji mii comme ni ko papaam waxee moom mooy premier turandoo joxuñu ko ko mu def ko mbindaan def ko booy ca biir kër ga dañ ko koo jox mu dugal ko jardin jàngal ko maam jaara ñang nii ci kaw jàngal na ko ku ñu wax ñu euh, ko waxee ci sax Ibrahima ñoom ñi nga xam ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaar ci aji booba bàjjanam ku béegul daara ji bàjjanam di sonn ci moom lool aji jun tag suñu réer dina andi lu mat ñeenti mbubb ba juróom te mënoon naa ñaar te benn bu ci nekk valeur lay doon di ko takkal or di ko defal lépp bu ma ci gën a itteel gën maa ñor nag mooy alquran ji nga xamante ni bii jox na ko ko muy loo xamante ni bii ah kado bu rëy rëy rëy la kado bu rëy ndax njëriñ la ci aji binta njëriñ la ci ndeyam ak baayam di jame njëriñ ci société bi yëpp loolu mooy li tax ma gërëm ko jiital gërëm gi ndax kon xolof yaay jaay da di aye woon sa moomeel moom tey bis bii moo ko moom loolu moo tax ma di ko gërëm waaye mboolem koo xamante kii rek muy soppi koor ci man maa ngi lay gërëm di la sant seeni taxawaay rafet na jafeel gi am ci man yéeme na su ma feebaree duñu am ma xiif bëgg ñu ma mar bëgg ñu ma rafle ay sa kay jërëjëf jërëjëf sa taxawaay rafet la ci sa biir léegi ndey su ma ko waxul damaa soxor damaa bon te damaa ñaan te duma ko def mukk ci àddina lu ma la gënal sax nag dama lay ñaanal ndax ba nga nekkee lu tuuti nga daan dabu sama bànneex lépp loo yaakaar ne lu neex la rek li ma ko jox pour ma lekk sa njaboot gi yal nga leen jëriñoo yaa ngi leen jullit man nag damaa mën nga wax ci biir mbooloo loolu moo ma bëgg a gàttal bi di ñaanal sama sët bii ndax kii sama sët la ma di ko ñaanal mbokkalam gi yal nay du sax

أيها الحفل الكريم إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أقدم إلى حضراتكم كلمات يسيرة أشكر بها ربي على نعمه العظيمة أشكر بها ربي على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ومنها أن جعلنا ممن يخدمون كتابه ويحاولون إدخاله في صدور الناشئة نسأل الله النجاح والقبول والإخلاص وبعد شكر الله تعالى أقدم أيضا تشكرات حارة إلى كل من له يد في أعمال المعهد وفي إنجاح هذا الحفل القرآني بهيج وأحص بالذكر منه والداي السيد شيخ تجان جي والسيد ديجان وشيختي والسيدة حاجة بنت تشاو والسيدة سخنة أجا أوجوب جميع أعضاء المعهد من المحفظين والمحفظات والمربين والمربيات والعاملين والعاملات وحتى الطلاب والطالبات أولياء أمور الطلبة وعلى رأسهم السيد عمر جه راعي الحفلة السيد مامور سيسي راعية الحفلة السيد السيدة أجا مريم فال وشكرا لكم ginnaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam dinañu bég loo lool dinañu kontaan loo lool ñu sant suñu boroom di ko sant di ko kañ di xam ni lépp moom la ndax lépp lu fi jaar yoon rekk suñu boroom moo ñu taxawu di ñaan suñu boroom liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ci yan ci yàlla saxal di def lépp muy sellal di kontaan bu baax ci suñu ndonga yi nga xamante ni ñoo mokkal alquran di kontaan bu baax it suñu ndonga yi nga xamante ni ñu ngi fi nga xamante ni ñooy suñuy njaboot ñooy suñuy lépp di leen ñaanal suñu boroom yal yàlla taxawu leen yal na yàlla sàmm leen yal yàlla aar leen yal nañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yor réew mi ëllëg di gërëm si ñi nga xamante ni ñooy suñuy parent d'élèves ndax ñoom tamit lépp ñoom la ndax tey suñu ubbi woon suñu daara kat te ñoom indiluñ ñu seeni élèves yaakaar ni yaakaar naa ni kon najaax du am kon ñu ngi leen di ñaanal loo leen mën ren yàlla ngeen ko mën déwén da nga xamante ni tamit ñu ngi fesal suñu contentement ci ñoom ndax ñu ngi taxawu daara ji lépp loo xamante ni yëg nañ ni daara ji ñu ngi koy soxla samay parent d'élèves wanuñu ma ci ginnaaw ñu ngi taxawu ci seen i conseil ñu ngi taxawu ci seen lépp kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla suñu borom def seen i doom yi ñu nekk ci doom yi doom yi barkeel a barkeel a barkeel yàlla nañ bokk ñi nga xamante ni ñooy ŋànk réew mi ëllëg yàlla nañ bokk ñi nga xamante ñooy nekk ci bureau yi ñu nekk ay xaafisa yi nga xamante ne ñooy nekk ci buro yi ak ay xaafis yi nga xamante ni ñooy nekk ñoo yor société bi daal yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def di gërëm tamit suñuy ñaari waajur di leen gërëm di leen ñaanal ndax lépp ñoom la suñu papa ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér suñu yaayit ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér ñu ngi may taxawu kanam ak ginnaaw ñu ngi ci daara ju suba ak ngoon ndax ku ne xam na ni liggéey bii dafa diis benn nit rek mënu ko bu doon man kase waat naa ni du dem waaye ñoom ak employé yi nga xamante ne ñu ngi ci daara ji ñu nekk ci waañ bi ñu yor xale yi di jàngal xale yi ñoom ñoo yor daara ji waaye amaaneen sax duñu man ndax ñoom ñooy nekk ak xale yi guddi ak bëccëg di fanaan ak ñoom di nekk ak ñoom parfois sax ma waxan ci ko xamante ni leer na ko ni lii naqari ko waaye duma ci am lenn lu ma lu ma metti maa ngi leen di ñaanal suñu borom lépp loo ne liggéey ci daara ji yal na ko suñu borom def seen miisaanul xasanaat yowmal qiyaam yaa na ko suñu boroom def ci seen miidaanul xasanaat yowmal qiyaam di gërëm ñi nga xamante ni tamit ñoom lañ tuddee bis bi muy Adja Marème ak papa siise ñoom dañoo nekk ci man ñi nga xam ni Adja Marème Fall ñu moo ñu yore woon ba ma nekkee daara ja ñu jox ma yaay Adja Binta caw yaay daara yóbbuwuma fa ñaari at laa dugg ci ay loxoom musuma def loo xamante ni mus koo fàttaliku muy lu ma metti moo tax ba ma jëlee pour yoonu liggéey gisoon naa ay kii yu bëri waaye dama xalaat xëy na lii rek laa mën a def loo xam ne dina sedd ci xolam ndax sonn na ci man jàngal ma alquran sonn si man ay ay rakkam bëgg ma ñi nekk ci daara ji ñëpp bokk maa bëgg moo tax samay jour yu njëkk yi duma ko jox kenn ku dul ñu sës ci moom ndax lépp lu ma am moom la alquran awma lu am ëpp alquran te moo ko def ci man maa ko ñaanal suñu borom yàlla may ko wér ndax tubay tey bu wéroon fii lay yendu ak man maa ngi koy ñaanal suñu borom yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla wattu ko yàlla yàlla ko fu làq yeggul yàlla yëkk ci daaraam awma ci moom sago ndax lim def ci man mooy alquran awma lu ëpp lii ndax tey lépp moom la tey su ma demee ba ñemee yëkkati ay dong di leen jàngal alquran lépp moom la kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla ko yàlla taxawu yaay aji binta yàlla ko yàlla sàmm yaay yàlla bu mu gis lu mu ragal ci àddina ndax gisuma ci àddina ku def ci yow lu ëpp alquran te moom def na ci man alquran boole kook yar ma boole kook yor ma su ma jëlee beneen yoon maa jël sama yoonu bopp waaye wallahi maa ngi leen di seedal deful ci man lu dul njub deful ci man lu dul alquran te loolu la ma sant saa su ma ko moyee man maa jël sama yoonu bopp saa suma ma ci te awoo man def naa li nga xamante ni moom moom la ma def ci man te moom la ma digaloon Adja Marème Fall ñu ngi koy sant bu baax ci di ko ñaanal ku taxawu daara ji la moom tam papa Mamour Cissé di suñu papa ñu tuddee jardin bi Adja Awa Diop muy sama yaay moom tam muy sama yaay nekk rakku yaay eh, Adja Binta ñu yor ma yor bu rafet du dara lu moo tax ma tuddee leen bis bi yor bañ ma yoroon ca daara ja rafet gam rafet téye bañ ma téye woon te ba tey dañu ko loolu moo waral bis bu ma am muy bisu alquran mu njëkk ci samay bis ma njëkk cee am ay ndongo yu mokkal alquran gisuma keneen ku ma ko mën a tuddee kudul ñoom loolu moo tax ma jël cër bi joxaat leen ko maa ngi leen di ñaanal lépp xaraf bu fi xale yi jàng yal na ko suñu borom def ci seeni misaanul xasanaat yowmal qiyaam yal na ko suñu borom def ci seeni misaanul xasanaat yowmal qiyaam yal na yàlla fay yiw maa ngi gërëm samay dëkkandoo muy waa Cité Alioune Sow ñu am compréhension lañ ñoom tam wax dëgg yàlla ku ne xam na ni daara dëkk ak daara dafa metti xale yi dañuy coow guddi di coow bëccëg di yuuxu di xalxali mais musuma gis ku ma ñëw àkk si ni ma yaa sayda lan moo tax xale yi di coow lan moo tax ñuy wax lan moo tax ñuy def lii kon ñu leen di ñaanal cité bii yàlla na ko suñu borom sàmm képp ku nekk ci cité bi lépp li nga bëgg ci sa àddina ak ci sa allaaxira yal na la ko suñu borom defal lépp lu ngeen di yóotu ci alquran yal na leen yàlla defal barkeel alquran ci seen kaw du ma noppi mukk du ma doy di gërëm samay parent d'élèves maa ngeen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sant it ñi nga xamante ne ñoo jóge daara yaa Aïcha umul muminin ñii nga xamante ne ñoo ma séq ñii laan bon daan bokkal di tëdd ñii laa daan bokkal di jàng ñii laa daan bokkal ci xalxala yi jàng ñoo ñëw fii nekk sama wet ñii ubbi daara ñii ñi fi ñëw ñëpp daanak ubbi nañ daara ñëw yendu si ma ak man ñëw taxawu ma soutenir ma maa ngi leen di ñaanal yéen itam seen daara yi ngeen ubbi yal ci suñu borom teg seen i loxo alquran rek mooy dëgg wallahi alquran rek moo dëgg alquran rek moo mën lii alquran moo dul gis wujju ndax tey moo nañu woon di wax ay wujju lañ mënoon nañu wax daara laa yor comme yow duma def yenn yi mais ñoom ñoo ñëw nekk sama wet di ma jàppale te du tey rek chaque jour ñu ngi waxtaan ñu ngi xool nan lañuy def ba fii ci Sénégal jëm kanam ba alquran bi di gën a jëm ci kaw te incha allah islaamay daan incha allah allah islaamay daan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haaja Binte li mu def si ay xaaja binta mi moom la def si bépp njaboot bu jaaroon ci ay loxoom mu yaay joo xamante ni euh, dañ koy ndamoo ndax bariwul ci société bi ñu toll nii koo xam ne dangaa taxaw rek di defar jigéen bu ñuy compter ci biir Sénégal li fiy daara Aïcha génn ci ay xaafisaat kenn mënu koo wañ man xamatuma ko bokk te yaakaaruma ni ñun ñi toog fii ñëpp xam nañ lim lim boobu ndax depuis 97 ba léegi wala depuis ba léegi kuy génne lu ëpp euh, fanwee ba ñeent fukk ba juróom fukki xaafisaat ba ñu toll ci mille 2021 lim googu ñu mënatuñ koo jàpp waaye liñ koy ñaanal suñu xol lañ koy jëlee te xam nañ barke alquran dina ko toog ndax li mu liggéeyal alquran يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات من دمنا سيدنا سخنا حاجه بنت تو القران يكتي نكو يكتي نكو في ني نيك تا فاجو جيميت ادنا فا ام مقام بوري ندخ لام تريجي كون نيو كاي سانت ديكو غرم ديكو نيانال بروم بي سبحانه وتعالى مسمل نيوكو defal ko tawfiq ba lepp lu mu bëgg ci alquran mu am lu ko kawé lepp lu mu yéene ci wa ahlul ñun itam ñu fexe dox ci ay tànkam ndax ki la yar bu la teetee ba wan la boo defee safaan yow la neex kon ñun tey jii ñoo war a nekk ay référence fexe ba soxna Xaaja Binta Thiaw fi mu tegoon tànkam ñu ko fay teg ah, lam daan def ci alquran ba ñëpp xam ko ñu jéem suñu kéemtalaay kàttan ngir def lool comme ni ko fi mbokk yi waxee dara mënu koo def lu dul ixlaas ndax yonente bi sallallahu alayhi wa nee na benn jëf yàlla du ko nangu wala mu barkeel ko lu dul ñaari def see ànd an niya wal ixlaas kon lépp lu waa def bu yéene ba amul matul waaye bu fa sellal ga nekkulee jëf jooju mën na nekk ci jëf yi ñu naan fa ja'alnaahu haba'an mansuura yàlla nañ ci yàlla musal kon ñu jox kàddu ki nga xamante ni mooy suñu yaay soxna Marème Fall moom mi nga xamante ni moom lañ yaayee bis bi di ko sant di ko ñaanal sant bu amul àpp bismillah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 yàlla na ko yàlla dolli xéewal ak mujj ginnaaw loolu ñu ngi leen di wax ne jàmm yàlla ak yërmandeem yàlla nekk ci kenn ku nekk ci yéen. Euh, euh, ñu leen di wax tam ne kontaan nañ lool ci daje bi muy daje alquran waaye sax nag mu am <clears throat> jagoo jagoo bu mooy suñu doom muy aji Binta géy suñu doom. suñu xarit waaye tamit mu nekk ku sagal islaam ku sagal alquran euh, ci li mu def nii tey li mu taxawal nekk mbégte ci ñëpp ah ñuy wax nag ne aji dañoo ko yar waaye aji moom nii rek la mën a mel ndax euh, ki ñuy wax baayam di Cheikh Gueye ñun biñ koy xam xale bu ndaw lañ te ñu ngi ko xam ci diine Cheikh Gueye ñu ngi ko xam ci ëttu islam bi kon tey xëj na aji Binta Thiaw muy yaay am na ndam ñun waa Daara Aïcha am nañ ndam waaye ndam googu yëpp bis bi yëpp li ko waral ki ko waral mooy Cheikh Gueye moom moo am ndam gi moom ak soxnaam gi toog ndax ñoo jël seen doom bëgg yàlla bëgg alquran jox ko yaay Adja Binta Thiaw di jigéen di jigéenu Cheikh Gueye Cheikh Gueye man bi ma koy xam dama koo xam muy càmmiñu sama mag Adja Binta Thiaw te teggiwul tànkam te ci diine lañ càmmiñoo ci diine lañu ànd ci lañ xamante ba ñuy xale ba toll nii kon Cheikh Gueye mën naa am lii Cheikh mën naa am sax lu ëpp lii ndax man ci diine laa ko xam man téere diine yi ma njëkk a jàngee Cheikh Gueye moo ma ko jox mu jël doomam kon jox ko aji binta caw pour mu yaral ko ko waaye joxe boo xam ne joxe bu set joxe bu rafet joxe boo xam ne cheikh gëstuwul cheikh gestuwul cheikh laajtewul cheikh xoolul waaye soxnaam sii ci ndey jaañ ñëwul lijjantiwul nu fa doomam nekkee joxe bu rafet joxe bu set joxe bu sell kon bis bii mën ngeen koo am mën ngeen koo am muy njukkeel gu leen seen borom defal kon loolu mooy li ma doon wax ci bis bi aji nag sama doom la duma wax dara ci moom dama koy ñaanal yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla muccal lii mu tàmbali nii yàlla na ci yegg fu raw fu turandoom yeggoon te am naa ci yaakaar ndax comme lii waa ji wax rek am na fulla am na pasteef waaye aji moo gore aji binta géy yaa gore aji binta géy yaa gore mënoon nga koo bañ a def te dara du la ci fekk kenn du la ci xas kenn du la ci xarab waaye yaa gore aji daf ñuy fekk fu ñu nekk ba fa ma toxu pëti mbaaw aji day gaare ñëw toog waxtaan ak man wax mënoon na koo bañ a def waaye aji binta yaa gore nit nag gorewul mukk ba réccu too ko réccu ndax ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi ànd ak yow ñu nekkoon nag ci bis bi tey man li ma gënoon amal solo ma bëggoon ko wax daanaka xale yi joué nañ ko ci seen sketch bi sànq muy yar dafa am solo waaye suñu doom jee Aïcha Gueye ñu leen di bëggee ñoom ñëpp may nuyu waale ma Mbuub ak ñoom ñii ñëpp sama ginnaaw man bi ma ñëwee gis leen kontaan naa conférence bi neex na ci man ndax samay njaboot lañu. kon kàddu yi may wax nag na ngeen jàpp ne maa ngi koy wax ci kàddu Mamour Cissé Alaaji Mamour Cissé nekk bi fa tukki moo tax ñëwul waaye njabootam yëpp ñu ngi fi kon lépp lu ma fi wax rek sof naa ci turam maak moom ñoo ko bokk wax nekk yóbbal kon na waajur yi yóbbaale sketch bi xale jeu lu reuy la ndax lolu moy tax alquran bi xale yi mokal mu meun leena jariñ waa waxna lu am solo neena alquran alxuraan day mokkal ko du farata waye nak jeffe ko mom farata la jeffe alquran farata la waye mokal ko du farata de kon yal nañu yàlla may jukkee alxuraan li ma bëggoon wax ñëpp xale yi joué nañ ko daara dañ fay yóbbu suñu doom pour mu mokal alquran am na loo xam ne nag daara mën na ko waaye am na lu mu mënul de am na loo xam ne waajur gi moo koy def ci doomam tey wéy di ko def ci doomam kañ bis bu xale bi jógee ci daara ji dem ca kër ga yow mii jur sa doom xoolal lépp loo xam ne ci ci yaram mu ëndaale ko neexu la dindil lépp loo xam ne dafa manqué mottalil lu mu mënul jàngal ndax bis bu jógee ca daara ja mokkal ñëw say loxo doo am problème doo sonn ndax bu yegsee am nga responsable bu toll ne dangaa yore ku mokkal téere yàlla bi kon ki nga yore yow sa responsabilité bi nga amoon ci sa doom ji dafa yokku ndax lañ ko yóbboon ay at xañ ko sa bopp xañ ko waa kër gi ngir lan ngir mu mokkal téere yàlla bi waaye yaakaar naa ngir mu mokkal ko di ko ndamoo ngir mu mën koo jikkawoo alxuraan ay jikko la yu ñu war a jikkowoo kon bu ñu ko mokkalee ba pare dañ koo war a jëfe waaye xale yi mokkal ko rek amul sens waaye nag daara ji mënul lépp de xale bu nekkee ci daara ji day julli sañ heure bi jot na bañ ko julli xale bi sañu ko xale bu nekkee ci daara ji même bu fa télé amee du ko taal sañu ko xale bu nekkee ci daara ko yemloo fa lay yem lan moo tax xale bi bu demee ca kër ga mën a tekkeeku mën di taal télé heure bu ko neex buñ ko santee du ko def heure julli muy nelaw du togg du yàkk du teggi du def loolu du waa daara ji de loolu parents yi la yow mu jur sa doom am li nga bëgg ci moom ndax ku bëgg lu baax mooy jël doom di ko yóbbu daara kon yaakaar naa ne bu daara ji defee ci sa doom ji alquran jàngal ko julli fexe muy julli bu ñëwee ci kër gi defal ci moom li mu war a def liggéeyu jigéen wax nang dox nang yaru bàyyi télé bi fexe jikkoo jikkoo alquran kon éducation base la yom saa sam waxoon ne al yaay mooy école bi njëkk ci doom kon ñun ndey yi yóbbu suñu doom yi daara ja nañuy waajal xale yi nañu waajal suñu bopp waaye nag faaq di chey laa yonti nit ki li mu amul mënu koo joxe kon il faut ñun parents yi boo amee responsabilité war a yóbbu sa doom daara jàngal ñu ñu suñu doom yi nekk ci daara yi nañuy dem di jàngi sàkku ji xam-xam-xam nu ñuy yoree suñu doom yi waaye nu ñuy teeroo xale bii war a jóge daara mokkal téere yàlla bi nan lañ war a nekkee moom yow saa sa lu mu waxoon ne na lépp loo jóg di ko def da dem jàngi lu ci islaam wax damaa bëgg a jaay damay dem jàngi lan la islaam wax ci njaay nu ñuy jaayee li ci dagan li ci araam li ma ci war a moytu damaa bëgg def beneen commerce bu mu mënti doon dama koy jàng waaye damaa sax bëgg a jàngale alquran damay dem jàngi lan la islaam wax ci jàngalekatu alquran nu mu war a mel yan jikko la war a am nan la war a nekkee xale bi nu mu koy xoolee nu mu koy yaree ndax lan ci loxo jàngalekatu alxuraan la xale di génne ci daara bëgg alxuraan wormaal ko fonk ko mu gën ko lépp mu pare pour jëfe ko waaye ci loxo jàngalekatu alxuraan day la xale di génnee ci daara sib alxuraan bañ ko te du bëgg a yóbbu doomam daara loolu àq la boo xam ne sa diggante sa borom di nga ko layoo yow jàngalekatu alxuraan waaye yow yaay ji ci kër gi xale bi nekk ci daara ji ñu koy mi ngi muuru ci daara ji mu ngi julli mu ngi def yépp bu ñëwee ba ci biir kër gi dindi na kaala gi teg nga mees ko wan ko ne fii mooy kër gi kat waaye diine ja moom ca biir daara ja la yor la yem xale boobu bu demee ba am na mu mel nga ne daara ja moo ko yarul yàlla moom inna allaha kaana aleykum raqiba yàlla mi ngi gis lépp mu ngi ne jàkk ci ñun képp ku nekk ci ñun nag sa responsabilité bi nga war a taxawee soo ko taxewul suñu borom yàlla dina ko laaj kon dama ne àdduna bi xale yi wax nañ ko yàqu na whatsapp bi këf na lépp këf na lépp lépp maanaam loo gis ci biti rek dootul dëgg léegi da ngay sax ragal génn waaye ñun ñooy am suñu fulla ndax ndox fa mu daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp tepp yi ña daan yar ña ngi yar ba tey nga bëggoon a baax ñu ngi baax ba tey man de ni sama doom bëgg mu mel dama koy utal àndandoo yu mel noonu waaye man sax yaayam damay pare mel noonu ndax damaa bëgg suma waa kër baax nga gis koo xam ne tey bëgg ay doomam yaru moo tax mu changé colin bëgg ay doomam duñu wax ci nàngam moo tax mu bàyyi wax ja limay wax dama ci amna ci experience bu reuy da ngay nek ci daara xalé duñu xam yenn wax yi xam nga ay wax yi xew ci biti da ngay am man ma ngi ci biti di genn di dem di ñew xam naa ne amna wax yu xew gis nga ne xalé ci daara ji yëpp kenn du wax wax ji buñu jëlé jëlee tabaski ni sàllaaw buñu ñu ñibbisee commencé commencé ñun ben ngeen baal ma ci misal bi misal bu ndaw man wax amna wax yo xam sa duma ko xam xëñ na lañu xawa xawa tuuti nek seet ñun yaay daara yi ndax duñ ko tal xale bi dafa ñëw ñu ne ko yow de dañu lay booleeg taa diw gis nga boo defee nangam dañu la booleeg taa diw ñu ko yàgg taa diw yëpp ci pot ma ne luy pot man baat boobu xaw ma kon xam nga déggee ko ci daara ji fu mu ko déggee ba mu génnee la ko dégg kon yow mu yóbbu sa doom daara am nga responsabilité bu rëy du tari muy neex rek de du tari muy neex rek de du ci loolu la yàlla di fay fexeel ba loolu nga ko yóbbu mu jàngi ko mu jikkoo ko te nga bàyyi bañ a bàyyi lépp ak daara ji loolu mooy li may dénk sama bopp di ko dénk waajur yi xëj na euh, temps bi may ñu te tam ñu ngi sant yàlla biñ ñee fekk na sketch bi xale joué muy éducation muy yar waaye fekk nañ ay sigéey am na lu mu lu am solo lu ma am lu ma yitteel lool ci ci yar kon nañu bàyyi xel ci yar xale yi balaa ñoo yar xale yi il faut ñu yaru ñun mag ñi il faut ñu wàññi téléphone yi il faut xale di ñu gis ñuy jàng alquran il faut xale yi di ñu gis ñuy julli il faut xale yi gis ñuy naafila il faut xale di ñu gis ñuy sol yëre yi jot di muur muuraay yi jot waaye wax ji il faut xale yi bañ ñoo dégg ñuy saaga xale yi bañ a fekke suñ jotaay ñuy toog di jëw bu ko defee loolu xale yi di fekke yëpp ñun yooyu xale la ñuy former ñun yaay ci kër gi te yëguñu ko te responsabilité boobu duñ ci génn kon pour ma bañ a guddal maa ngi jéggalu ci kàddu yi waaye maa ngi delluwaat sama kontaan ci sama doom euh, di euh, wax nañu fi toog ñëpp ci jotaay bi man ngeen ñëwal man ngeen toogal ma leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal Euh, du ma dem mukk te nuyu ma sama maam booy maam ñu ngi lay nuyu di la teg sa wàccuwaay xam ne yow moom yaay suñu maam kon ñu ngi sant ñu ngi leen di ñaanal Cheikh yal yàlla barkeel yal la fi yàlla yàggal géey yal yàlla barkeel nga fekke ay kaamil kaamil kaamil Ndeye Ndiaye ñu ngi leen di nuyu Diagne di nuyu waa kër gi yëpp ñoom Aïcha ñu ngi leen di sargaal di leen jox nuyu yaay nuyu Mamour si ak nuyu famille bi yëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu. kon dañuy jox président parents d'élèves yi. mu Dia Moussa ku nekk bàyyi na yitteem ñëw ngir bis bi bisu alxuraan la man nag ci lu mel ni aussi laa jóge looloo tax sax dama xaw a tardé que maa ngi woon ca daara tafsir abdurrahman gay bu tasset parce que dam fa am benen dom bi nga xamni dam ko warono jeli momit lolo tax ma tardé ah di né dal sama jigen bi wax dëgg yalla jambar la man mi gor sax lélé daf may nan li la bëgg daf may tit modérateur bi wax nako sank so amulé fit waane wo dojo xamna ni li doko yenu ba diko ko attan donc moom macha allah xam ni wajuri def nañ ci mom li nga xamanteni ni duñ ko rëccu parce que li alcorane rek moko man ma ngi doon wax kérok ak sama ben euh, natango li euh, état bi di wax manam moy employabilité des jeunes li tay moy emploi bu gëna mooy nga sos daara di ci jàngal xale yi diine parce que diine mooy li nga xam ne fe amul fenn fooy dem bu di ko rëccu ñaareel bi mooy ngay employé ay nit emploi yooyu li nga xam ne maanaam day revenir ci société bi donc amul lenn li nga xam ne tey dañ koy def ci daara gi te li nga xam ne maanaam soo ko xoolee ci développement ci loolu lay dellu donc ñoo koy gërëm di ko santé di ko ñaanal yàlla parce que man moom wax dëgg yàlla euh, li ci mujj rek mooy maanaam bërëb bu mu mujjee jël bi ma ko gisee damaa tiit dama dama ko ne ah dëgër nga fit de li di nga am li nga ko faye mu ne ma yàllaa ko yore donc loolu rek wane ne maanaam njàmbaarte am donc ñoo koy ñaanal yàlla euh, fu ni ma xamante ni maanaam loolu foofu la ko bëgg a yóbbu yàlla mu yombalal ko mbir mi ba lépp li muy séentu walla lépp lu mu mbébét yàlla àndal ko ko ba lépp loolu maanaam mën a nekk loolu daal lañuy am di ko bàyyee daal ak yàlla parce que ñun lu ñuy naan araf benn araf boo def ci xale kenn mënu koo fay ba ñuy naan walla mokkal nañ alxuraan xale yu jigéen tey xale yi ci sketch bi wax nañ ko société bi dafa yàqu whatsapp yi réseaux sociaux yi lu ne nga ciy dégg donc da ngay dem ba yow ci so bop sa da ngay tit parce da ngay nan njabot gi maanaam ndaxam dinañ mucc donc lu ñuy leen mën mucc lo rek moy lu melni donc yobul len ci daara ñu fexé ba suñu xalé yépp ñu yar len ci diiné té mom ci loolu la taxawé donc amul len lu ñuy xamante ni maanaam mën nañ ko tay luddul diko gëreem ko sante diko sant ñaanal yalla yalla may ko gudd fan may ko wër ñaanal ko tamit ay wajuram ah parce que waajuram daal xam naa ne sonn na ci moom ay waajuram parce que xam naa ni moom am nañ ngërëmal yàlla donc di ko ñaanal yàlla daal ba lépp li nga xaman ni sumb na ko yàlla dugal ci loxoom ba loolu antu kaddu yi ma yamale ko fii rek xam naa ni xaw na guddi donc di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm képp ki nga xamante ni bàyyi nga sa yitte bàyyi nga sa soxla nga ñëw ngir bés gi donc ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla jox la yiw haza salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amul lu ñu toll xanaa dafa am ci biir kaddu yi lu neex lool loo xam ma ne ah dafa dafa nekk koo xam ne kii ñu bari ci yéen xamu ko dafa effacé wu. moo ko aju yow ak yaay seen yaay bokk benn yaay waaye jamono yi nga xam ne marché bii ngi dugg bi do boo toppee boobu temps aju néew bi dafa di màkk mu ñëw fekk ma ci buntu école bi indi mbuusum mbuusum ay ay livre français jàng français ba nekk kàdda la jàng français la ba li ñuy tuddee kàdda nekk kàdda la indi mbuusum français ni ko bëj sama kanam bàyyi naa jàng français dootuma jàng français avant laa jàngi dama jàng alxaan affaire bi daf may ree kontaan la ma ma bëgg ci waaye tam nag ma jaaxle ci waaye dama ne depuis keroog ba nëgë ni musta arrière nii rek la ma moo tax bi mu jëlee kàddu li waxtaan léegi sama xel loolu la ma fàttali wax dama kontaan lool bis bi ni muy neex neex neex bisam boobu moo ma gën a moo ma gën a marqué ndax booba temps loolu gëmuwul woon loolu jàng français li mu tuddee avenir dem ba kawee lool njàng mi ñëw li ñëpp dama li mu français yi bëggatuma français may dem jàngal alxuraan waaye nga xam nañ ne tey réccuwul def na yu bari da ngeen waaye yàlla boo ko woo téléphone ngeen waxtaan wala nga dem bureau nga dem nga dem euh, këram li nga xam ni kii ndekete dafa simple comme ni ko waxee wax ko ci ginnaaw waaye dara la. lool nag mooy rek li ki léegi alxuraan moom ci kanam rek moom la aju jeexale islam mooy gañ a ëllëg alxuraan mooy teg li ñuy wax ndaw ëllëg incha allah yéen ñëpp kenn ku nekk surtout ñu jàng alxuraan ngi eh, leen di dénk dar daara yi daara da ngeen ko dar da ngeen da daara yi rek daara dar rek dégg naa suñu nee na. te ku jàmbaar ku ku yàlla may la ci daara nee na daara mënut am problème benn benn bu dul ñàkk jàng rek feebar du problème ci daara xiif du fa problème mat du fa problème lu yaas ndox xam nga lan problème daara ñàkk jàng rek rek lu lu lu am firnde la lu am firnde la amoon na eh, ci mbokk yi ne mbokk mu dama ci daara bi ma nekk ci daara weex muy jàmbar rek di jàmbat rek di jàmbat rek daara ji ma ne ko man daal li ma jàpp mooy li ñu woon muy jàng bu dee mi ngi am baax na bu amatul jóge fi rek ba mooy li ñu muy jàng bu daara ji neex na bu jàng mi amatul jóge fi kon mu bëgg a def mooy ñu daara ñëpp nañu ñu leen seenal ñun di ñu yar di ñu teetee di ñu jàngal te amu leen ci limite di ñu xamal àdduna di ñu defar te bàyyiwu leen benn côté da nga wax ni nit bu jógee pour liggéey dara dafa war a xam àtte yàlla loo ca loola da ko war a jàng waaye ñun tey bu ñu jugee pour sos daara defe naa duñu sonn dañuy jug mu baasharatan dem sos daara jàngal ngeen ñu nan la ñuy yore daara jàngal ngeen ñu nan la ñuy jëflante ak nit ñi jàngal ngeen ñu nan la ñuy waxee mu rafet nan la ñuy jëfee mu rafet ak nan la ñuy sellale ba daara ji dox jazakumullahu xeeran defe naa bu ñu leen ko waxee yàlla fay leen bu ñu leen ko waxul yàlla fay leen ndax yéen yéen a ko def te kuñ jàngal incha allah yéen seen yiw dina leen fekk fu ngeen mën a nekk ci àdduna jazakumullahu xeeran yàlla na yàlla fay leen yiw te bàyyi leen ci suñ kanam